suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ni jar doonaa ko am. SOS Njambe mu nekk kuréel gu am solo ànd taxaw mbokk taalibe yi tawal. képp ku ci bëgg a barkeelu tamit mën nga jël si numéro SOS 77 729 60 60 ci turu maam Cheikh Ibrahima Diouf. awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. mbokki jullit yi mbokku taalib yi yéen ñi nga xamante ni yéen a baaxoo di seetaan Ndiamé yi ak fu waay mën a nekk ñu ngi lay déyu te di la siyaar di la màggal baax tey ñi ngi fii daaru Kër Mamoor Xoroja Cissé ci siyaare daaru bi nga xamante nii mboolem taalibe yi aju ci Cheikh Moussa Cissé njàmbe borom daaru ñu gën leen a xam ci yàlla yàlla yi ñooy amal bis jagleel ko Cheikh Moussa Cissé njàmbe borom daaru njàmbe TV ñëw fii tey ci daaru doxantu ba ci marché bi euh, ci jaaykat yi xool ñoom naka leen toogee ak euh, yan njaay la ñuy jaay yoo xamante ni tey mooy gën a jar ci marché bi euh, ñu doxantu rek ci marché bi wan leen euh, jaaykat yi naka la ñuy toogee naka la ñuy nekkee fii si seen télévision Ndiamé TV. kon mbokk yi kon nu leen koy waxoon ñu ngi taxaw fii ci euh, jaaykat bi dañ ko bëgg a tàllal mu micro rek. waaw ku baax gi ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp waaw yow boo ñu laaj boo ñu laajee loolu dina la ci sawar a wax ci si ci siyaare bi leen ci xam ndax siyaare bi wax dëgg ñun man bii mooy sama ñeenti yoon ma fiy ñëw dama fiy ñëw wax dëgg moom xiiwal gaa ngi fii wax dëgg njaay mi itam ñu ngi ciy gis suñu bopp ndax dañu ñëw indi bagage gis nga koy bagage yaa ngi waaye bu ñuy dem bu neexee yàlla yëpp la ñuy jaay wàllu boisson baa ngi yaa ma gën a xam maa ngi doon segg nii café tuubaa gi pour góor yàlla yi waaw waaye siyaare bi moom waaw lu ñu ci wax yëpp wax dëgg moom day neex lool si ñun ñun jaaykat yi. waaw kon mbokku taalibe yi ñu leen koy waxoon rek ñu ngi doxantu ci marché bi ba tey ñëw fii fekk si ñu maman bi muy jaay ay kaane salade ay soble ay ay ay carotte eh, batanta waaw mbooleem légumes yi daal xam naa moom ku fi ñëw moom eh, eh, di nga am li nga bëgg daal moom ñu ngi lay nuyu di lay siyaar tur bi ak sant bi. man Ndaak Cissé laa tudd waaw. ñu bëggoon a xam naka ngeen nekkee ci marché bi njaay bi mu ngi dox wala client yaa ngi ñëw. waaw client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk de ah, naa ne suba lay gën a dox ah, gars yi moom ñu ngi ñëw gars yi léegi lañ fi jógee ko ñu ngi ñëw di def ndànk-ndànk. ah déedéet jafewul xana touré touré lay jafe si si sey mom yomb na fi waaw ñu ngi ñew bu baax ñu ngi ñew di jënd bu baax déedéet seerul kilo bi soble bi kilo bi 400 lañ koy jaay bi kilo bi 300 bi ke li 600 benen bi 300 bi 250 mom lañ koy jaay kontaan nañ torop ñu ngi sante de gërem luñ ko commencé yal nañ ko yeggaleeg jamm ak salam kon mbokk yi ni leen ko waxoon ñi ngi fii ci marché daaru bi di continuer yéen euh, reportage bi nga xamante ni eh, jaaykat yi leen ko jagleel ñoom ñii liggéey liggéey boo am solo fii ci daaru Kër Mame Mor Kharaja di indi ay seen njaay di ko jaay clients yi ci eh, njëg goo xamante ni taw feex na daal ñi dend fee kenn tur bi ak sant bi sëñ bi. waaw Cheikh la. Cheikh ñu ngi lay nuyu di la laaj eh, naka ngeen toogee ci marché bi ak yan njaay ngeen di jaay ak lan la euh, clients yi daal di gën a jënd. waaw alhamdulilah ñu ngi nuyu bu baax euh, waa Ndiamé TV euh, di ziar sëñ bi bu baax a baax a baax wax dëgg fa yàlla ci ziar bi nga xam ne vraiment chaque euh, année ñu def ko ñu ngi ko ci ñaanal wër di ko ci ñaanal tawféex di ko ci ñaanal gudd fan ak naal yi mu naal ci dëkk bi yàlla na yàlla sottil yëpp di jaay rasulilaay ñun nag wax dëgg fa yàlla dañ fi ñëw parce que c'est la première fois ñu ñëw fi pour jaay si. Euh, ñëw fi vraiment indi fi ay dàll yoo xam ne yu yu yu mucc ayib la di ko jaayee ci prix yu yomb waaw vraiment xéewal la daal fii daal yaakaar naa ku fi ñëw moom da nga fi fekk lu rafet da nga fi fekk tamit vraiment loo xam ne moom loo fi indi daal lu sa poos boo ñëwee da nga fi da nga fi am daal incha allah ci barki sëñ bi. est-ce que fas ngeen ngeen parce euh, que daal yi bëri ay daal euh, jigéen ay daal ay xale jigéen daal te fii moom def naa xale jigéen yi bëri neen fi est-ce que tamit bu ñëwee dinañ waxtaan ak yéen ndànk ndànk pour euh, ni ngeen mën a def daal ba jaay leen daal. waaw man daal fii moom li ma fi yëm mooy waxaale bi daal bëriwut maanaam boo ñëwee moom boo ne ñaata lay ñu ne nangam rek benn yoon ñaar yoon ñu génnee fay loolu daal lu ma yëm la fii moom. Hmm. waaw loolu moom xam naa ne ni ñuy ci yeneen ni dëkk. Ah, waxaale bu bari bi ak aawa yeeg ñaareel yi fii moom vraiment moom waxaale bi bëriwul da ñëw rek ñu ñëw jënd xañ na li mu yomb moom moo tax aha kaddu yi mujj waaw di sant di gërëm rek vraiment di ñaanal sëñ bi comme ni ma ko waxee sama wax bu mu njëkk ah, ñaanal ko gudd fan ak wér ak nal yi ñu naal ci dëkk bi yal na ko suñ borom sottil courant ak tali lépp ñëw fi di jaay rasulilaay jërë ngeen jëf. dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam danaa wax mu nekk kuréel gu am solo ànd taxaw mbokk taalibe yi tawal képp ku ci bëgg a barkeelu tamit mën nga jël si numéro SOS 77 729 60 ci turu maam Cheikh Ibrahima Diouf